salut les amis yéen a ngi seen podcast Wolof teg épisode bi nga xamante ni moom la ñuy def chaque àllarba maanaam mercredi euh, jagleel ko bépp sénégalais boo xamante ni dafa inventé wala mu créer benn mbir bu am solo ci wàllum informatique wala nouvelle technologie maanaam xarala yu bees yi nuyu naa leen bu baax ziar naa leen bu baax a baax a baax alors tey le mercredi 26 mai 2021 ñu dalal benn invité bu exceptionnel nag nekk professeur chercheur écrivain maanaam jàngalekat la gëstukat la bindkat la aussi dafay bind ay euh, day bind ay livre mu xaatim nag benn téere bu am solo tuddee ko guide du génie logiciel maanaam téere la boo xamante ni euh, day gind képp koo xamante ni bëgg na jàng li ñuy wax codage pour mën a defar ay logiciel monsieur Moustapha Der ziar nañ la. maa ngi lay ziar sëñ Ibrahima. yaa ngi si jàmm bu baax a baax. waaw Ibrahima baax a baax monsieur sëñ Ibrahima baax na ngeen def coono maa ngi maa ngi kontaan trop si si si si si teewlu émission bi quoi. waaye ñoo la gën a kontaan ñoo la gën a kontaan alors juste avant nag euh, fin épisode bi incha allah dinañu indi aussi quelques news yoo xamante ni rapidement lay doon ci ay extension VS Code euh, yoo xamante ni découvrir nañ ko te ay sénégalais defar ko maanaam ku ñuy wax Daouda Ba moom moo nekk Galsen Dev ak keneen ku ñuy wax aussi Ahmadou Wali Kane moom aussi dafa créer den extension bu am solo ma découvrir ko voilà euh, dans la foulée comme ça incha allah dinañ ko présenter après ci biir émission lépp lépp li si waay indi lu bees da nga koy rafetlu quoi. exactement jéem xool noo ko noo koy mën a jàpp jàppee gën a ma wax. ah man monsieur Der maa ngi naanaale benn kaas ataaya de mbaa j'espère que yaa ngi ci teg ataaya. <laughs> Ah, non non non bisimilah bisimilah. ah. <laughs> allez baax ba pare doog a nuyu ataay quoi mais ñu dem directement kon ci sunu euh, sunu épisode tey bi maanaam le guide du logiciel un manuel 100 pour cent codage made in Sénégal. alors professeur déjà avant sax ñuy dugg euh, ci sujet bi rapidement est-ce que mën nga ñu wax kan mooy Moustapha Der. waaw Moustapha Dédé benn sénégalais la benn sénégalais boo xam ni euh, yëf informatique moom moo ko moo ko moo ko musa moo ko musa amoon amoon amoon solo. Euh, di euh, gëstu bu baax nag di jàng bu baax nag. waaw man bon à la base ingénieur mais je suis recherche également docteur également ingénieur après je je beaucoup dans tout ce qui recherche. mais également, avant même de dugg si recherche bi, j'étais plus dans les dans J'ai beaucoup travaillé dans les liggéey naa si projet si ay projets yu bari bari. ay projets yu bari Sénégal sax mu ngi leen di jot. waaw si liggéey demee naa tamit après j'ai eu maa ngi ma dugg si domaine jàngale bi également. Euh, maa ngi si bëgg a yàgg nag macha allah donc euh, comme am naa benn expérience ma ne nag espère euh, xam-xam moom jëriñ jëriñ lenn lu euh, mhm. mooy euh, tasaare. exactement pour échanger nit ñi communiquer. donc mhm. loolu moo am moom moo pour sax ma ma ma bind. waaw loolu moom wëndu ko alors loolu dinañ si ñëw léegi waxtaan ci bu baax a baax a baax parce que xam naa ne liñ ci def rëy na trop alors euh, euh, xam naa ni euh, pédagogue bu mag nag parce que loolu gis naa ko ci ay interview yoo xamante ni def nga ko ci ay chaine de télé et wax bi nga xamante nag moom ma ci gën a moo ma ci gën moom laa ci gën a ràññee ci sa jotaay yi mooy bi ngay wax ne le logiciel est l'âme de l'ordinateur alors naka nga ñu mën a expliquer ne wax jooju loonu ak lan la génie logiciel di représenter ci loolu yëpp. ok question bu ma neexee ngi noonu <laughs> parce que boo xoolee souvent ñu bari dañuy mm-hmm. euh, dañuy le même définition souvent mooy informatique ñu bari dañuy poser problème parce que da xam nañ ko mais ñu ko mën a euh, ordinateur définition yi day nekk affaire yu compliqué si souvent et boo nekkee ak ñoo xam ne xamuñu euh, nekkuñu si domaine bi il faut nga wax ne wax ne wax ne ay wax yoo xam ni buñ ko déggee dañ koy capter jàpp ko mu jeex mu yomb si ñoom te boo xoolee ordinateur bu ngay bu ngay bu ngay xool ordinateur ay dafa am ay ay ay lu ko lu ko composé li koy li koy li compo li ko composé ñaari ñaar ñaari partie la te boo xoolee maintenant je dis maanaam de façon de façon générale ah lépp lu ñuy def muy création lu nit def rek da ko créé à base de lutte nit nit dafa xool si la base de la créé yëpp moo tax ba ni ma ordinateur boo ko jëlee ñaari yëf la ñaari yëf mooy li koy mooy matériel bi ak lu ñu tuddee logiciel bi. donc boo jëlee tamit nit ñaar yëf la muy ya corps bi mën nañu tuddee tout ce qui peut toucher c'est le corps il y a lam ce qu'on appelle bi maintenant mooy mooy ñu ko tuddee si wolof mooy mën na nekk bi quoi ruu ñëpp xam nañ ni boo jëlee nit bu ruu bi la ñu rek leneen la tudd mais kenn nit leneen beneen benn appellation la ñu la wax foofu. xoolee aussi nit ko amul ruu pratiquement nit koo xam mënatul mënatul boo xam dara. même suñ ordinateur boo xam ne amul amul logiciel bu amul logiciel cest à moom kaas kaas dong la kenn kenn soxla wut boo ko si rek xam même logiciel bi ñëw sax parce qu'il y a deux parties la partie logiciel mooy la partie qu'on appelle le logiciel système et ce qu'on appelle le logiciel d'application. maintenant boo jëlee logiciel système bi maintenant mu ngi tuddee système d'exploitation maintenant système boobu maintenant mooy doxaloo matériel ordinateur lool moo moo mooy tënk mooy wan ni même ordinateur matériel bi boo lépp lu si mu lu mu mënta rafetee rafetee ak nu mu mën a ngandee ngandee amul logiciel boobu. rek du dem quoi benn njariñ amul benn njariñ. ok ok loolu nag moo tax ma ni le logiciel maintenant moom mooy l'âme de de l'ordinateur. l'ordinateur non wax boobu daf ma marqué trop quoi alors lan la lan la génie logiciel nag di jouer ci loolu yëpp. ah très bien. génie si wolof mooy. bu ñu nekkee jeudi la mooy kii euh, tàngam la. Mhm. maintenant ah, ah. logiciel maintenant mooy mooy mooy liy doxloo ak mooy ak mooy mooy li moo mooy am bi muy mooy déjà am bi la ak lépp loo xam ne mën na yokk si am bi. c'est parce que y' a y' a ce qu'on le système d'exploitation mooy tax machine di dox fonctionne normalement y' a ce qu'on appelle les applications. ce qu'on appelle les logiciels d'application mooy yeneen application yi nga xam ni dañoo boo ànd day ànd dañoo ànd ak logiciel maintenant pour yokk ay fonctionnalités yokk ay bi. maintenant boo jàppee loolu maanaam yooyu yëpp maintenant li koy defaat mooy ingénieur logiciel mooy xarañte xarañte xarañte yi xarañte euh, logiciel bi moom moom si fekkee dañ bëgg a teg si wolof. waaw si si si c'est l'ingénieur logiciel maintenant qui permet de de concevoir et de mettre en œuvre tout ce qui est logiciel de façon générale. ok là c'est là la là c'est clair alors alors monsieur Der euh, euh je sais que Sénégal bëri na ay euh, bëri na ay bindkat ci wàllum littérature ci wàllum histoire ak yeneen ak yeneen mais yow en tant que informaticien enseignant enseignant chercheur euh, lan moo la poussé ba nga xalaat defar livre pour gindi pour gindi ci pour gindi ci ñëpp ñi nga xamante ni dañoo bëgg xam naka lañ bëgg jàngee codage wala defar ay logiciel ok bonne question question ma ma am solo la noonu. parce que dama dama xamante am solo bu am am solo trop sa parce que depuis depuis deux mille euh, bon yàlla dafa dafa def nag très tôt mm. may intervenir si si sama détail même tout ce qui est euh, réforme euh, même au niveau du ministère dafa jël dama si intervenir quoi sur les nouveaux programmes qu'il faut créer qui depuis deux mille quatre maa ngi intervenir dans les examens d'état examen d'état te boo waxee examen d'état yi am na ma yenn bon du ma sax sori foofu parce que c'est c'est un peu secret quoi mais am na yenn yenn mm. spécialité yi ñu si ñu si ñu si intervenir bariwul parce que euh, benn partie bi ñi ko maîtriser aussi bariwul man peut-être am naa am naa chance bu naan peut-être chance que ma ma teel si gëstu ma teel ko xàmmee ma teel ko ràññee. Mm-hmm. gis nga maintenant loolu nag euh, c'est vrai que à ah, le temps mi ngi dem. bon ah. am na aussi affaire yu bees yu génn man aussi je je tends juste également si yeneen yeneen côté ma ne balaa may génne point A bi pour dem si point B bi il faut que ma partage sama connaissance yi ma xam si côté boobu comme ça au moins dina am ñu bari ñu mën a relais dans un premier temps man aussi dama permettre également ma ma dugg si beneen domaine. parce que je peut-être am naa am naa peut-être la chance peut-être yéen ñi amul mooy que j'ai j'ai j'ai intervenu depuis 2015 ay programme de CODIP avec les universités françaises où je donne des cours à donc am naa am naa yoo xam xam ne xam ko te miin naa ko te gis naa ko te xam ko te xam ni yenn documents yi am yenn livres yi am fii nii euh, wax dëgg yàlla souvent am na yoo xam ni euh, du. Euh, nekkul li luñ duñ duñ duñ mën a li ñu soxla nekku si. ok ok parce que souvent am na yenn li li ñuy envoyé ay livres yu xaw yàgg lay nekk yu livres yi nga xam ne ñu ngi ñu ngi ñu ngi à souvent day xaw a cher parfois njëg bi ak budget bi day mën na bañ nekk mën na waaw mën na bañ a nekk accessible pour ñëpp mën si ñëpp mën si jot jote. ok ok. Euh, souvent ñun africain aussi ah, malheureusement tam amuñu habitude di bind. surtout surtout scientifique yi surtout scientifique surtout scientifique yi amuñu amuñu habitude bi c'est-à-dire ku ne da ngay loo xam euh, euh, boo nekk si benn domaine bi il faut ngay échanger il faut ngay partager am na solo. ça c'est parce que part le partage c'est une communication c'est un échange échange la quoi. ça da ngay bind loo bind moomatoo ko nag parce que loo bind moomatoo ko nit ki def la ay retour yëpp c'est pour bonifier parce que quand bu ñu remarque il faut juste le prendre dans le sens de la bu remarque buy buy defaat et buy buy boo ko gisee en fait dans tous les cas di nga mën a mooy loolu moo lay pousse nga mën a nga mën te tey doomu jaaroo ñëw xool naa lii man bindoon naa ko mais mën dara bu bu ñëpp automatiquement dañu ay affaires yu yu solide yu baax yi ñu am. yu yu yu yu yu yu yu Mhm. loolu lañ manqué les quoi si si fii ci Sénégal. exactement même en Afrique je pense même Afrique waaw même Afrique yëpp alors man je pense que euh, déjà lii la poussé ba nga bind livre bi c'est très noble affaire bu am solo la parce que constat bu ñëpp def la déjà livre yi jógee à l'étranger du nekk des fois à jour tu vois. wala mu nekk livre yoo xamante ni dañ ciy bolante lépp yu bëri yoo xamante ni ñun soxlawuñu lépp peut-être war nañ ci mën ah, seppi essentiel bi. voilà CP essentiel bi jox ñu ko ah. ñu capté lool voilà te yow je pense que loolu nga def ci sa livre bi alors. exactement foofu laa dañuy parce que même foofu laa dañuy sax nga may maagale rek foofu. parce que boo xoolee même yenn livres yi yenn hmm. livres yi ñu jox la information bi ngay soxla dañuy def théorie bu bëree bëri. waaw si si si si théorie boobu boo patient wul doo doo àgg si si si si la partie la plus importante. doon nañ ja instant jamono toll na boo xam doon doon na foo xam ne nit ñi amatuñ benn jot bu bari bi cest à que nit ki koy wax wax ko li li bëgg a xam nga wan ko li muy xam mu ngi koy kii mu xam ni mu koy jariñee mu koy woote ay exemple mu xam ni muy mu dë suba lu ko bu ko soxlaa ñu koy mën a utiliser c'est important moo tax même même les deux ñaar su ñaari livres yi c'est on a on a procédé a APC approche par les compétences cest que chaque concept bu ngay bu ñu jël on prend chaque concept bu ñu jël dañ koy définir joxe ay formalisme jox la exemple ay ak ay corrigé cest à ku bëgg a jàng yow boo boo xoolee di nga nga xam facilement nga xool nga jël sa machine. pratiquer exactement textuellement li ci livre bi exactement ni muy def alors ci loolu ci loolu sax la ñuy dugg ci pro ci question bii nii ñu jëm si parce que mun naa tënk nekkoon yow livre bi nga proposé dafa pragmatique. accord exactement alors léegi léegi monsieur Der dañuy dugg directement léegi ci biir livre bi nag maanaam euh, li nekk ci biir ci comme xam ak naka nga ko defee alors naka nga euh, organiser livre bi ci biir ak yan xam-xam moo ci nekk mais aussi euh, lan moo wutalee livre bi nga xamante ni bind nga ko ak yeneen livre yi nga xamante ni ñu ngi jàngale ko daal te ñu nekk ci marché bi maanaam Sénégal Afrique wala ci àdduna bi très bien boo jëlee maanaam hmm. livre bi le dama dama jël daw tome omb laa njëkk jël tome omb laa njëkk waaw parce que ay tome yu bëri la waaw kuy def codage kuy def codage li le minimum mooy il faut comprendre algorithmique comment ça fonctionne. lu am solo nga noonu. te ñu bari dañ koy négliger nag. lu am solo nga noonu. yow bu fekkee yow yow yow sa bopp déjà ko demoon ba comprendre logique bi nga am benn base bu solide après pour nga mën nga mën si avancer def lu am lu am njëriñ day xaw a métti si yow da da ngay limiter après moo tax algorithme déjà foofu on a mis l'accent sur l'algorithmique d'abord. e foofu nee na dañ commencé généralité ba pointeur yi mooy tome un bi maintenant foofu tamit chaque chaque concept bu ñu définir foofu dañuy utiliser trois langages d'application trois langages d'application benn bi langage C la e, benn bi langage C plus plus la waaw benn bi maintenant Python bañ choisir les trois langues parce que les trois langages sont sont à la base. ok ok je vois. dire que yow déjà di am tous les concepts de base. yi mm-hmm. nga Mm-hmm. maintenant compte bu ne maintenant ñu jox le formalisme bi jox leen c'est-à-dire ñu ngi koy utiliser def ay exercices corrigés et appliqués au au C langage C et langage Python mooy tome 1 bi. ça c'est cool on se dit que boo paree pointé maintenant ñu dugg ci ce la partie complexité algorithmique. que mën nga def ay solutions yu bari. mais solution yi ngay def maintenant il faut nga toujours nga gérer maintenant les deux aspects. Moi, ce qu'on appelle les contraintes temporelles et spatiales. C'est-à-dire qu'il faut que le programme se glisse rapidement, mm -hmm. mais en bouffant le moins de ressources possible. C'est important. C'est-à-dire il faut que programme bi il faut que programme bi di dox mu nu mu gën a gaawee mais aussi di jëfandikoo euh, ressources yu gën a tuuti. Ah. Ok, ok, ça marche, ça marche. Mhm. gis nga yooyu aussi il faut nga nit ki mën ba def luy baax. Mhm. mais il nga dama nga ni ko booy defati maintenant dañ si bàyyi xel si ñaar yi parce que dafa am solo. ok ok je vois je alors mu ngi mel ni mu ngi mel ni rek mu ngi mel ni nga génn war a dem boutique ba war a jaar yoon bu gàtt dem mais am na ay yoon yu bari yoo xamante ni mën na dem boutique ba mais boo wiiree jaar dem fu sori tamit di nga yegg boutique ba mais di nga sonn di nga dépenser énergie bu bari donc booy dem nga gis chemin bu gën a baax. ok je ah exactement. ñu foofu nag dañuy on a mis l'accent là parce que foofu dafa am solo parce que mu nga defal solution bu baax mais yooyu boo ko tant que mënoo xam xalaat sa xel bàyyiwoo sa xel. Mm. après toujours da créer ay solution yoo xam ni nii duñ ko soxla wala duñ ko mën a kii daal solution bi ba mi ngi dox mais. dafa dafa compliqué wala dafa nii wala dafa nii wala dafa nii dañ waaw nag après lañ bàyyi xel bu baax beneen partie bi nag bi ëpp solo souvent livre yu bari euh, ba sax dugg duñ si si duñ si duñ si appesantir su côté boobu la partie qu'on appelle les données complémentaires complémentaires cest là-bas maintenant on a manipulé les listes les listes mais les listes yi maintenant les chaînes yi. ok les chaînes les listes monodirectionnelles. Mm-hmm. les listes bidirectionnelles. Mm-hmm. les listes euh, avec des cas pratiques cas pratiques cest dire concept dañuy expliquer jox la parce que ça c'est important parce que mm-hmm. à moment donné boo buggee def programmation boobu bu avancé. Mm-hmm. moom foo mënti jaar comprendre. waaw ça c'est sûr. parce que sinon da ngay am ay limites. Mm-hmm. ça c'est sûr ça c'est sûr. da ngay am ay limites ba ñu paree maintenant si maintenant ce les les d'attente. xam les files d'attente dañ koy tudd rek quoi mais on peut ay affaires yoo xam ne on peut les manipuler on peut les implémenter. Okay. Parce que Phil Tanti, maintenant, c'est, c'est, ils appliquent ce qu'on appelle le FIFO, le first in, first out. Alors, est-ce que mun nga ñu expliquer rapidement ah, lan mooy file d'attente yi pour que ñi nga xamante ni xamuñ ko. waaw file d'attente yi. Eh, très bien xam nga file d'attente boobu bu ko jëlee xam nga les applications de gestion de réservation. ok fépp pour am réservation rek les files d'attente sont utilisées gestion des gestion gestion des de la priorité maintenant en mooy ce qu'on appelle le FIFO le first in first out foofu nag boo jëlee par exemple comme nga jël exemple bu a bu a simple nga ni par damay gérer par exemple au niveau des banques banques gestion des clients qui vont vers les caisses exemple wala nga def au niveau des hôpitaux mhm. gestion des files d'attente au niveau des des des patients des maîtres pour les consultations yëpp ay d'attente la mais gis nga yooyu nag souvent dañu joxe les deux possibilités de d'implémentation Parce que la file d'attente, donc, est implémentée soit avec les pointeurs, soit avec les tableaux. Et tous les deux sont implémentés dans le livre. Avec des cas pratiques. OK, OK. Maintenant, les piles. Parce que mhm. quand, quand quelqu'un fait la performance au système, mhm. il est obligé de comprendre les fils et les piles. Mhm. Parce que même, même, même en interne, la plupart des processus sont gérés sous forme de, avec les Faut aussi, on a mis l'accent sur les deux points là aussi, mais toujours avec les Euh, souvent yooyu dañuy manqué lu bari ñu jóge fa maintenant dugg si les arts maintenant. Mm-hmm. ok exemple art bi tamit. moom mm-hmm. mooy aussi c'est important parce que euh, la plupart même des beaucoup d'applications sont faites sur la base de ces arbres-là parce que mënoo def théorie des graphes tant que tu n'as pas compris les les et là il faut savoir les implémenter. et même foofu tamit on a a on a mis l'accent sur les méthodes de parcours aussi pour on les arbres. Et ça veut dire quoi a maintenant d'abord, on est passé par ce qu'on appelle le parcours en profondeur, le parcours en largeur, avec des cas pratiques, des cas pratiques. Et chaque parcours maintenant que effectivement, chaque parcours maintenant, pour, le parcours en profondeur, on a utilisé les trois méthodes d'implémentation possibles post-fixé, préfixé, infixé. Et chaque cas aussi, on l'a traité les deux façons, à savoir l'approche récursive, récursive du monde, et l'approche itérative. Ça, il faut que nous exactement ça. il faut parce que boo ko xamul. par mm. exemple quand quand boo boo nga dugg dans l'environnement du big data wala nga def nga def la la la partie performance distribuée foofu da ngay da ngay taxaw. da ngay taxaw da ngay bloqué complètement parce que doo comprendre. fond fond technologie bi doo ko comprendre quoi. exactement doo dem doo dem. boo bëggee implémenter algorithme déjà doo ko mën doo ko mën def parce que loolu da ngay da ngay am ay blocage. Mm-hmm, mm-hmm. wala sax wala sax wala sax technologie bi choix yim la may yëpp doo ko xam te telle sorte que doo ko mën a utiliser pleinement quoi lu mooy problème exactement exactement alors je je sais que euh, je sais que man maa ngi wax ak maa ngi wax ak enseignant bi maa ngi wax ak chercheur bi maa ngi sentir exactement <laughs> amour bi nga <laughs> xam ne nii mu ngi génn complètement ci affaire bi euh, alors mais <laughs> am na yeneen question yoo xamante ni foog ñu laa ko aussi alors je sais que euh, comme ni ma ko waxee léegi passé nga ay at yu bëri je pense que sax gis naa ko quelque part ay fukki at ak lu topp euh, def nga ko ci jàngale ak liggéey ci ay entreprise ak yu demee noonu donc di ko jaar-jaar boobu yëpp nag moo la permettre tey jii nga mën a jël ay cas pratique comme ni nga ko waxee euh, yi gën a intéressant yi nga xam ne nii moo gën a moom la nit ki di gën a jànkuwanteeg peut-être ci ci ci vrai dans la vraie vie ci entreprise yi wala demee noonu nga implémenter ko. ci euh, ci sa livre bi nga wane nan lañ koy implémenter implémenter ak ay langage yu bokkul alors question bi may laajte foofu mooy lan moo tax nga choisir langage C C++ Java ak Python pour implémenter cas pratique yi. Eh bien, très bonne question également. Je vois que question est possible, c'est vraiment c'est impeccable. Hein? Ouais, euh, si, si, tous les journalistes avaient les mêmes, les les compétences techniques là, bah, <laughs> mais, mais, mais ma, ma, développeur là, comme gars, quoi. waaw waaw waaw si si si moo tax ma wax loolu. waaw journaliste. <laughs> ok vas-y. il faut voir y a y a y a deux choses. waaw y a deux choses xam nga bu koy jàngal cest dire il y a il y a une lapse classique c'est-à-dire que xam euh, comme souvent la booy commencé on la plupart du temps on est dans l'approche procédurale bi quoi mooy avec le langage C bi. ngay dugg parler y a y a des cas bon langage yu gën a neex a jàngale c'est-à-dire mu xaw a nuru ak ak kii bi mu mu mun ko appliquer mën a comprendre. maintenant bu defee yooyu c'est ça. Okay. Maintenant, le C++, maintenant, comme il est hybride, ça veut dire qu'on peut dans des cas tels qu'on peut travailler en objet comme en procedural, il faut qu'on nous utiliser. Maintenant, le Python, maintenant, le Python, comme on dit, c'est un langage qui a beaucoup, beaucoup d'avenir. Surtout dans l'environnement de IAB, Big Data, Machine Learning, Deep Learning, tout ça. Oui, bien. Ça dit, il faut que nous, nous, nous, nous, nous, Parce que, comme on a dit, Euh, comme li ma waxoon ba xam naa ni si sax parce que normalement on va aller jusqu'à 17 tomes inchallah inchallah inchallah machallah il y a a boo xam ni. Ah, dañuy franchement franchement franchement au Sénégal au Sénégal on est gâté quoi franchement on est gâté quoi franchement. avec sept tomes après dans l'avenir am. il y a l'aspect technique qui est là heureusement que on est assez technique on on dañuy liggéey déjà un dans les entreprises tout ce qui se fait. on le fait on le sait dañu koy pratiquer mais également aussi il faut aussi que espace bi ñu am as partager ak ñeneen ñi. waaw ça c'est sûr ça c'est sûr loolu dafa solo quoi parce que xam-xam moom jëluñu partager. ok si si alors mais mais mais mais Java bi Java bi Java bi tamit je pense que na Java bi maintenant boo xoolee aussi le Java il est très très important parce que Java xam nga euh, a on est pas dans l'approche objet. maintenant mais on temps le fonctionnel également lu am solo nga noonu tamit le Java déjà mi mi ngi mi mi ngi jëm mi ngi mi ngi avancé même le Python également il est fonctionnel le Java aussi il est fonctionnel cest dafa nekk ay technologies yoo xam ni yow nit ki il faut nga d'abord nga préparer ko te boo koy waajal il faut nga nga wax ko li mu war a comprendre nga wax ko li mu war a jàpp jàpp ko comme ça booy pousse maintenant muy muy muy muy comprendre. exactement si si je comprends. parce boo boo boo boo imaginer bu tëb boo un plus un. Mm-hmm. nga ñëw mën nga cinq plus cinq du comprendre. mais boo xam ne maintenant un plus un bi ba comprendre ba mu baax a quatre plus cinq dana ko mën comprendre danga mën def xam ne koy defee. ok si si foofu lañ jëm nag c'est-à-dire ok ça c'est parce que parce que il faut d'abord balle solide ba pare quoi balle solide mhm. le reste dina dina dina yomb. dina gën a mën a yomb quoi alors maa ngi maa ngi wax auditeurs yëpp aussi que ne euh, defoon nañ ay euh, épisode ci Java. defoon nañ épisode ci Python même ci algorithme avec Elias Waliba tu vois donc bu ngeen bëggee am plus d'information ci Java Python ak yu noonu mu ngeen demaat ngeen xool épisode yooyu di ngeen gën a am yeneen information yu bari bari bari bari parce que xam naa ne tey mënuñoo fee def euh, voilà defaat Java ak Python yu demee noonu mais li ñu li ñu professeur nii déjà c'est clair quoi alors euh, alors am na ñu bari ñoo xam ne aussi euh, professeur podcast bi fexe ba ñëpp comprendre li nga xamante ni ñu bari dañoo yaakaar ne lu lu lu jafe la ci wàllum xarala yu bees yi donc ñan ñoo mën a jëfandikoo livre bi nga xamante ni nga ko ak ban tolluwaay lañ war a am ci wàllu xam-xam pour mën a comprendre yenn concept yi nga xamante ni développé nga ko ci développé nga ko ci biir livre bi. Eh, bon même sax parce que boo xoolee livre bi kan moo ko mën a utiliser parce que même koo xam ne autodidacte nga xam koo xam ne parce comme je dis informatique. Euh, euh, dans la vie en façon générale man damay jàpp wax damay jàpp ni quand on veut réellement on peut bu fekkee da nga bëgg nga ci te donnes les moyens de réussir tu peux pas réussir. Mm-hmm. loolu dafa am solo c'est-à-dire que autodidacte bëgg na il est passionné par les TIC mu bëgg si xam am si connaissance bu bu dëgër il peut il peut il peut le faire parce que dans le livre il y a tout dedans. maintenant la différence maintenant affaire bi c'est que avec avec yenn livre algorithme yi yu classique yi. da ngay ñëw on te donne des formes mathématiques yoo xam boo defee attention ça c'est sûr <laughs> ça c'est genre gi dañoo bañ <laughs> mathématique sax déjà. <laughs> honnêtement honnêtement. am na gis ma forme bizarre yu bizarre nga daw génnaat te yàgg. ça c'est sûr ça c'est alors que alors que alors que euh, nous on a dañu utiliser benn approche boo xam ni. Mhm. Euh, c'est-à-dire que euh, on se met à la personne à la Okay. Maintenant, on lui donne maintenant les, les, les rudiments nécessaires mm -hmm. pour comprendre, apprendre et avancer. Okay. C'est-à-dire que autodidacte, on peut utiliser. Étudiant, on peut utiliser. Même également, un channel aussi, on peut utiliser. Ok, ok, je vois. Ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est intéressant. Même également, maintenant, le tome 2, maintenant, par contre, tome 2, bi, maintenant, quand on a déjà une base solide sur bi, wala nga nekk nga bëgg a dugg dans la recherche parce que aussi comme dañ ko waxee sànq la recherche également dafa am ay prérequis yu mu laaj. bah oui ça c'est sûr ça c'est ay daam lu ay barrage yu mu recherche boo ko teg koo xam ne il juste savoir mën naa yéene yéene kii quoi recherche yi gën a poussé donc on a te boobu tamit pour que ku bëgg def recherche nga am lee bases nécessaires qu'il faut comme ça automatiquement doo mhm. am benn benn benn jafe-jafe quoi ci côté boobu. ok waaw benn mais mais lan la ñuy lan la ñuy xaar aussi ci parce que wax nga ñu léegi nañu am na ay tom yeneen tom yu war a génn fii ba tom set sax alors lan la ñu war a mën a xaar ci après ci euh, monsieur Der pour mu euh, voilà indiwaatal ñu ko ci yeneen tom yi. waaw leen itam yi bon euh, da comme comme xam nga comme ni nga xamee xam nga informatique texte milieu boo xam ne c'est un évolue. qui évolue waaw ça c'est euh, ça a xam nga a donc maintenant le normalement le le tome qui le tom qui va venir après. Mm-hmm. Euh, il sera carrément objet objet objet carrément et même foofu ça on on va faire une nouveauté parce que euh, généralement il y a aussi une partie boo xam ne souvent les nit ñu bari ñu ko ñu ko gis ñu ko gis livre de bari duñ ko gis lu bari parce que c'est la partie algo avancée algo avancée bi ak algo objet. ok ok je vois. avancé ak objet bi y a carrément objet algo avancé. algo avancé ak algo objet alors lan moo leen ñoom ñaar. xam nga boo nee xam nga boo nee avancé bi xam nga objet bi. Mhm. Euh, c'est on va xam nga boo jëlee objet xam nga objet dafa am sa particularité. waaw en particulier objet mooy ay classeur ay objet yi ay polymorphie encapsulation étage yëpp. on peut les on peut les manipuler en, en algorithmique quoi c'est-à-dire que indépendamment des langages qui existent donc ay nekk ay affaires xam ne on peut des choses qu'on peut implémenter en algorithmique définir maintenant les les fondamentaux quoi les bases algorithmiques comme ça nit ku bëgg def langage objet boo ko boo ko xamee automatiquement fee da ngay ñëw rek jaar langage bu mu nekk da ñëw jaar jàll quoi parce que algo da jox na la base bi jox na la bi yëpp da ngay war xam yëpp. très différent parce que foofu da ngay si ay ay c'est la partie à les les approches holistiques voit bien ak les les les ok c'est beneen beneen beneen beneen kii la dimension la beneen level la a moo ëpp doole mais boobu je pense que ok vas-y. foofu nag boobu nag par contre malheureusement ñi koy jàngal Sénégal bariwul. waaw moo tax ma moo tax ma ne nag moo tax ma ne personnellement man foog ma jege monsieur Der pour ma mun a am bénéficier wu ci affaire boobu. <laughs> waaw parce que parce que parce que bëre am naa sax peut di être dans sur deux kii bokkul. si si donc ça veut am naa am yenn kii quoi moo tax moo tax yu bari am yoo xam ne bon yu ñu koy jàng ci bariwul quoi. ok ñu koy jàng moom wax dëgg yàlla bariwul quoi. alors franchement mais nekk xam ne au moins jàpp nañu. si si. si si franchement je pense que ne euh, ñun communauté sénégalaise bi am nañ chance bu bari am genre professeur yu mel ni yéen euh, nga xamante ni euh, dañuy dem uti xam-xam ci àll bi uti ko fu mu mënti dem ñu génnee ko ñëw di ko partage ak ñun parce que bari na ñoo xamante ni tey am nañ xam-xam mais peut-être partager wuñ ko ñu ngi toog seen place tu vois voilà fayeeku seen salaire toog dawal seen oto mais non mais non yéen defu leen loolu yéen ngi partager seen xam-xam bi ak ñeneen donc ci loolu rek déjà la communauté ñu ngi leen ci gërëm bu baax baax c'est hyper important alors. alors monsieur Der léegi damay dugal juste rapidement ñaari news yi nga xamante ni annoncé woon naa ko léegi après ñu continuer ci sa livre bi d'accord d'accord alors beneen news bi mooy euh, benn découverte la ci man sax c'est déjà parce que su may euh, développer souvent ay euh, projet Angular wala Python wala yeneen yu demee noonu damay utiliser éditeur bu ñu wax VS Code ma découvrir ci nag ñaari extension yoo xamante ni ay sénégalais ñoom ñoo ko développé alors bi si njëkk moom benn thème la boo xamante ni mu ngi tudd taaru benn développeur moo ko def mu tudd Daouda Ba moom moo nekk seen def moom moo ko développé développé développé Euh, man bi ma ko utilisé thème bu rafet la déjà ça m'a surpris bi ma gisee sénégalais yi ñu ngi def yu demee noonu tu vois donc sénégalais moom moo ko développé na nga ko installé aussi na nga ko cherché ci extension am na ay am na ay choix yu bëri ah am na ay choix yu bëri am na Abyss Blue Blueberry Dark ak Night ak yu ak yu demee noonu projet bi aussi euh, mu ngi nekk GitHub dinaa ko def ci description podcast bi comme ça képp ku ci bëgg contribuer rek nga mën a dem foofu noonu pour mën koo am pour contribuer ci alors beneen extension VS Code bi ma gisaat encore mu ngi tudd Media Player Ahmadou Wali Kane moom moo ko développé vraiment boobu aussi c'est très très très te euh, testé naa ko c'est hyper intéressant te man personnellement daf may arranger manaam euh, déjà parce que dafay may may permettre su may liggéey des fois may utiliser euh, extension bi di mën a déglu en même temps ay podcast parce que moom boo ko installé ci sa VS bi da ngay mën a déglu ay ay fichiers ay c'est ay podcast da ngay rechercher rek sa podcast nga mun ko indi mu indi la ko directement ci flux bi nga mën a déglu wala aussi ngay déglu ay ay émissions yeneen affaire ci YouTube ak yu demee noonu donc avec éditeur VS Code bi et c'est très très très très cool li ngay liggéey ah da ngay mën a continuer li liggéey normalement man aussi ah, boobu aussi dinaa ko def ci di non c'est hyper excellent dinaa ko def ci euh, euh, ex waaye dinaa ko def ci description podcast bi comme ça ñëpp mun koo gis installer ko aussi xam nan lañ koy installer parce que su fekkee da nga koy installer avec Linux c'est très facile da def ligne de commande yi mu dem mais su fekkee avec Windows la laaj na quelques manipulations mais dinaa envoyer lien bi comme ça ñëpp euh, mun a xam nan lañ koy installer alors nan nga gisee monsieur Der euh, lan nga xalaat ci technologie vie Sénégal ak jeunesse bi ça ak ak aussi wax nga léegi benn affaire bu am solo maanaam recherche ak naka la recherche war a taxawee fii ci Sénégal ci wàllum xarala yu bees yi très bien gis nga gis nga moom moom laa gis nga gis euh, gis nga euh, dans la dans le domaine du du génie logiciel. Ouais. je dis bien Sénégal. Mm-hmm. à Afrique amuñu dara dara dara lu pays soi-disant développé. ah oui honnêtement on n'a rien dis rien à à dire si on avait si l'État était un peu plus conscient que ça et que les gens mettent les moyens. et donne les moyens à, à, à, à certaines, à, qui ont les, capacités et les, les encadre, je vous jure, je vous jure. Hein, euh, euh, il n'y a pas de miracle, honnêtement, je vous dis. Il n'y a pas, le Sénégal a beaucoup de jeunes très mhm. talentueux. Mm ah wax dëgg yàlla man moom on a des compétences. franchement chaque jour ma découvrir ci ñu bees chaque jour ma gis ñoo xamante ni ak sunu ay grands aussi yoo xamante ni dañuy def affaire yu extraordinaire man sax daf may donc moo tax daf fi mu toll nii dama am problème. parce que normalement chaque jour dama naan je suis nul. chaque jour dama naan je suis nul li ma war a jàng dafa bëri tu vois alors je pense que c'est extraordinaire waaye. côté boobu xam euh, euh, nga comme xarañte parce que ñun bon bon peut-être mën mën na on dit souvent du dit la la la vérité sur blanche mais c'est pas la vérité honnêtement parce que gis nga nit nit ku nit ku nit ku weex boo mën di jël l'Africain a rien à envier ces gens-là en termes de de de de capacité mentale non non non fii on a des gens très très doués je vous dis très doués Maintenant, ce qu'il faut, c'est il faut, il faut les encadrer, il faut les coacher, il faut les manager. Je vous dis, on fait des miracles. Surtout, surtout. Ça, moment, man, Dieu, je suis prêt à poser, à mettre ma main et jurer. Je vous jure, on n'a rien, rien à envier aux autres. Mais je vous dis, man, je dis, moi, man, chaque fois, on donne une proposition d'emploi ailleurs. Ouais, ouais, Très intéressante. Si, si, si, si. Très intéressante. fois, chaque fois, dans les cas, on, on vous propose des choses intéressantes. Maintenant, parfois aussi, bon, parfois, c'est comme que moi, moi, moi, moi, dans les dédés. Moi, moi, man, je, je, je dois encore travailler, je travaille encore pour mon pays. Et parfois aussi, bon, euh, peut-être c'est compliqué, quoi, parfois. Mais, mais je vous dis, dans tous les cas, je vous dis, les cas, le côté ingénieur du le Sénégal, l'Afrique n'a rien à envier Nous avons des, des, des, des personnes au Sénégal très, très compétentes. Maintenant, euh, ma, le seul souci qui se pose, c'est que les gens en veulent, les gens sont prêts à faire bouger les mais malheureusement, parfois, c'est l'accompagnement qui manque. alors oui loolu moom dëgg la loolu moom la accompagnement bi day manqué mais alors man li may gis euh, a mooy euh, doomu aadama yàlla daf ko may xel pour muy xalaat tu vois alors fu mu dëgëree rek yàlla war na la mun nga xalaat pour ubbi beneen mm-hmm. buntu quoi donc comme ni ngay waxee ci olof yàlla du tëj buntu tëj fenêtre tu vois donc à chaque fois je pense que sax bu fekkee ne euh, financement amul war nañ mën a am yeneen façon xalaat ak yeneen façon nu ñu defee tu vois ba mën a avancer parce que am na si ñoo xamante ni dangay avancé avancer ba pare ñu door fekk si jàppale la nga door a dem. tu vois donc du coup boo taxawee rek ne alors buñ tax comme yéen déjà li ngeen di def nii xam naa ne effort bi ngeen ci def li bëri na trop te te sax li ngeen retour bi ngeen ci am sax du bëri noonu tu vois mais day nekk effort boo xamante ni tôt ou tard man jaakaar naa ne euh, ñun ñëpp dinañ leen si fekk si tu vois ñëpp dinañ ñu si fekk si parce que kenn ku ci nekk mu ngi def ay effort euh, ci ci côté alors hmm. lan nga mën a conseiller monsieur Der bépp sénégalais boo xamante ni mu ngi yëngu ci wàllum informatique wala sax ci beneen domaine bu nekkul informatique bépp jeune sénégalais. très bien déjà si bu fekkee informatique. Mm. Euh, dama naan toujours que activité boo koy def. Mm. informatique xam nga dafa dafa dafa dafa dafa dafa yaa dafa yaa tout quoi. dafa y' a y' a beaucoup de y' a à l'intérieur. li may naan toujours. même même même si c'est la conception même si c'est le design même si c'est le collage yow nit bu na essayer de maîtriser mu il faut être bon dans ce que tu c'est important lu mu ci mënti nekk rek loo mënti choisir dedans et soit très bon soit excellent dans ça te boo ko defee je vous do doo doo doo doo te di nga am bu la neexee sax liggéey yaay taamu. oui ça man fii ak fii laa bëgg. ça c'est sûr a y a y a y a xaw a bon nag mooy peut-être amul ku amul ku ku xam ku maîtriser wul dara ku am ku amul métier moom day a. taxalee surtout wala ñuy taxalee wala yu demee noonu quoi. c'est ça cest dire il faut nit ki muy rek même bu dee même bu dee wóot sax yow essayer soit excellent à wóot même bu dee par exemple il bu dee Photoshop soit excellent dans Photoshop loolu mënut a def nag tu peux essayer excellent là te boo ko defee maintenant doo sonn et aussi aussi les jeunes aussi qui ne sont pas aussi IT qui ont certain niveau et qui sont passés parce que instant aussi boo ñëwee au euh, bon par exemple xam nga nit euh, fii aussi bon jeune bi aussi parfois il est bon aussi ñu xante ñu xante ñu xante entre nous quoi on se la vérité entre nous. c'est-à-dire que euh, man je préfère benn jeune boo xam ne am na benn deux cent mille wala benn trois cent mille au lieu nga jënd dem di ko ay di ko jënd iPhone nga xool noo si mën a liggéeyantee am si daal lu dëgër. waaw ça c'est sûr ça c'est sûr. investissement jël la mais investissement bi woon mooy nga investi nga nga investi yoo xam moo lay jox compétence. ça c'est vrai il lay jox compétence. loolu dëgg la. Mhm. am na solo trop. parce que état yi sax da nga il faut investir soi-même c'est important. da nga gis de sa deux cent millions di benn téléphone bu cher cher noonu te yu xaay ba mun nga si jàng dara ba am xam-xam. mais boo nga jël xaalis nga dem jàngi si ba xam-xam en disant que xam-xam bi nga am maintenant après mën na permettre après jënd lu la neex donc ça c'est important il faut que les jeunes également sachent que euh, euh souvent il est bon de savoir investir sur soi-même et après d'avoir man des fois sax damay damay damay extrapoler sax naan man voilà euh, man jub man ñëpp ay IT lañ war a doon quoi parce que en fait li tax man ne ñëpp ay IT lañ war a doon parce que toll nañ jamono boo xamante je pense que informatique euh, du domaine quoi mais outil la tu vois outil boo xamante ni ñëpp ñëpp ñëpp ñoo ko war a mën a maîtriser di ko utiliser tu vois soit nag da ngay nekk utilisateur utilisateur avancé wala nga nekk benn wala euh, concepteur wala yu demee noonu quoi mais war a maîtriser béyabaawu informatique bi et c'est la raison pour laquelle man may def podcast bi en wolof pour permettre ñi nga xamante ni sax defuñ informatique xamuñ ko sax mais dañuy dégg ñuy wax ay développeur wala yu demee noonu ñu mën a xam lan mooy développeur lan mooy programmation buñ déggee Python ñu xam lan mooy Python. mais mën na am parce que am na benn ku ma fi invité woon ci sama épisode yi moom euh, moom je pense que affaire assainissement la def xam yu demee noonu mais ak beneen informaticien. tu vois donc là c'est hyper intéressant parce que xam-xam ak xalaat ñëpp ko mën tu vois tey mën nga nekk voilà euh, financier nga am benn idée parce que am nga benn euh, information ci wàllu informatique nga am benn idée nga oo benn informaticien ngeen discuter ci concrétiser benn affaire bu intéressant exactement donc je pense que ñëpp ay ça c'est important c'est important li nga wax nii c'est mais aussi nañ nañ éviter di def les débits de luxe pour des Ouais. Ah, boobu nag de choix bi amul benn njëriñ. il faut mm. investir sa compétence. exactement surtout surtout ça c'est important. alors monsieur Der presque yegg si nañ ci fin wu épisode bi franchement buggoon ma sax mu jeex parce que bëggoon ah, naa. Euh, euh, bu bu bu eh, <laughs> non xool bu ma sañoon dañuy ubbi <laughs> livre bi bu ma sañoon da ngay ubbi livre bi rek nga commencé dama expliquer quoi. <laughs> alors fan lañ mën a amee fan lañ mën a amee livre bi fii euh, ci Sénégal wala ci Europe feneen ci bitim réew. waaw waaw waaw bu dee au Sénégal maintenant livre bi mi ngi mi ngi à temps mais hmm. mi ngi aussi dans les librairies quoi comme quatre vingt yooyu quoi. ok euh, donc koo soxla wala wala si le faut maintenant bu ma envoyé bu bon fekkee aussi ko xam ne aussi mu bëgg na aussi ñu ñu livré ko également il peut il peut appeler quoi. ok si y a des gaz pour ça. naa joxe jox ñu numéro wala mail wala yëpp loo wala site wala tout comme ça ku ko déglu rek war a mën a dem aussi am après aussi da may envoyer information yi mu bind ko ci description bi ak lien yeeg numéro téléphone yi yëpp comme ça ku ko bëgg mën a commander directement quoi. Ah, waaw waaw waaw parce que ku ko bëgg moom mu di nga a def 77. 836 12 12 quoi mooy numéro bu gën a bu gën a neex mhm. foo foo mënta nekk. 836 836. 836 12 12. 12 12. waaw ouais, 77 la quoi. ok comme ça ñu livrer la sa livre sa gàlle comme ça nga jàng commencer exactement jàng guide du génie logiciel bi alors lan moo nekk sa lan moo nekk sa mot de la fin. waaw ouais, bon si. mot de la si si si si. ci également mën a dem si si Amazon quoi. Euh, si site Amazon bi. ok euh, foofu aussi boo boo duggee si Amazon rek boo boo boo cherché liquide nga def sama tur dina ñëw wax dina nekk woon kaa nga def sa commande. macha allah aussi boo boo mënti nekk ko dinañ ko dinañ a. livrer ah, ah, mais euh, gis naa ko gis naa livre fi sax ko coin Afrique coin Afrique sax gis naa ko. effectivement waaw également mi ngi fa effectivement waaw. waaw <laughs> ah, nga dégg. <laughs> oui boobu gis naa ko. <laughs> macha allah ah, effectivement il est il e il sur toutes les plateformes. Euh, képp ku ko mënti soxla rek incha allah boo defee commande bi incha allah di nga si mën jot à temps quoi. aussi aussi di di di di la encourager yow aussi monsieur Ibrahima parce que li nga yaa ngi liggéey bu am solo. bu am solo parce que gis nga euh, wolof teg. kii bi sax moo gën a moo gën original quoi euh, wolof teg c'est-à-dire que il faut que aussi à la base ñi nga xam dégguñu tubaab. wala seen jàng tubaab soriwul noonu tamit aussi ñu mën a xam ba mën a ràññee euh, parce que aussi comme on dit euh, technologie teel na foo xam ni ñëpp ñëpp ñëpp pratiquement koo gis am na smartphone mais quand on dit smartphone c'est intelligent c'est-à-dire que c'est un téléphone la base maintenant ku am ça les gens la plupart du temps peuvent lire et écrire maa ni maa ngi lay remercier di la encourager di ñaan aussi euh, affaire bi gën a yeb a law bañ dem ba. amiin amiin dem ba benn kii ba mu gën a mu gën a mu gën a yàlla mën na ko te incha allah parce que li l'initiative est très noble. amiin yaa rabbal aalamiin. et c'est très noble comme initiative. Mm. et que euh, les moyens vont venir bon nañ dem rek yàlla waxul kenn dara. incha allah li <laughs> incha allah mais ñun ñoo gën a kontaan nag parce que tey accueillir nañ euh, monsieur Der tu vois mm-hmm. voilà nga xamante ni ñu bëri dañuy roy ci moom euh, ci xam-xamam ak ci éloquence ak ci mbaaxam ci xam-xam parce que je pense que tey ku baax rek moom moo mën a jël li gën a màgg ci moom muy xam-xam tu je pense que nit mun na sàcc lu nekk ci nit ba mu des xam-xam quoi tu xam-xam moom yow yaa ko moom ku la neex nga koy jox boo ko génnee jox ko nit rek c'est parce que nit ku baax nga et je pense que euh, yal nañu yàlla may aussi ñu am nit ñu mel ni ñu bëri ci Sénégal comme li ma koy waxee rek de telle sorte que Sénégal briller en 2021 war nañ a am 16 millions de Sénégalais 16 millions de geek war na mën a nekk quoi tu vois donc ñëpp ci war a jàpp waaw ça c'est donc ñëpp ñëpp ci war a mën a jàpp et je pense que bu ñu amee comme genre monsieur Déré bu ñu ci amee ay quelques rek je pense que ça va marcher incha alors maa il faut ni nga xam ne tamit bind parce que c'est important euh, nga sa xam-xam jaxee ko tijji yàqu la dara yàqu loolu daal ku mën a bind bindal. c'est vrai nag c'est vrai nag comme on dit pas évident ça du temps c'est pas demande des moyens tout ça mais il faut songer à ça. ouais pour yow mais pour tout le monde. c'est pour la communauté quoi. c'est important. c'est important et toujours aussi. di aussi de aussi de le féliciter également si émission si idée vraiment très noble. c'est ouais. très très très noble. Ouais, ouais. Merci beaucoup. c'est très très noble. merci beaucoup franchement man maa lay remercier bu baax. alors merci beaucoup les gars euh, ñu ngi leen di jox dig daje ci euh, samedi prochain je pense samedi prochain et samedi prochain nag dinañ indiwaat beneen saison bu bees maanaam saison six lay doon et euh, mun ngeen ñu topp ci plateforme yëpp su fekkee aussi yéen a ngi utiliser ay applications de podcast aussi bu leen fàtte def étoiles yi comme ça nit ñi gën ñoo gis partout donc comme sa voilà ñëpp mën a bénéficier wu ci li nga xamante ni ñu ngi koy partager bi beaucoup samedi euh, samedi prochain incha allah ci beneen saison bu bees incha allah allez merci beaucoup ciao.